am sama relation ak moom je suis conseil municipal euh, nekk ci maire bi nekk ak moom donc mu nekk koo xam ni yar nañu ci lu bari nekk nit ku baax nekk perte boo xam ni perte totale la perte boo xam ni mën naa ne Sénégal yëpp a perte nekkul ñun waa commune bi rek boo xoolee li fi nekk mooy Sénégal moo perte ndax nekkoon na nit ku social koo xam ni ku ci nekk yaa ngi toog di jooy mais ku ci nekk la ngay jooy xam nga ko ci entre yow ak moom donc muy maire boo xam ni maire bu spécial la di maire boo xam ne kenn la ci maire yi te ñëpp reconnaître nañ ni c'est le meilleur ba ci njiitu réew mi donc ñun amuñu lu ñu koy ñaanal rek lu dul yàlla na ko yàlla xare àjjana donc def na ci loo xam ne ay jëf yoo xam ni euh, bi yëpp nañ ko tey amul kër gu fi nekk te jëlul la ngay liggéey wala amul ku am bac te jëlul la nga fayal la ngay jàng amul koo xam ne ëmb nga te jëlul la en charge ci lépp ba ngay am doom ba sa doom am 6 mois euh, xale yi nekk fànn nga xam dañuy jàngee fan ok mu sori utal nga leen bus yëpp gratuitement euh, tabaski korité bu jotee ñu ku ci nekk dañu gis sa bopp donc day maire boo xam ne c'est un trop social donc mais nag loolu da koo nàmp ndax parti la bokk di koo xam ni euh, dañ ko tettee ci expérience ak yorum réew donc dafa nekkoon koo xam ne dimension yorum réew la yor donc euh, gis naa sax ñoo xam ne ci armeel bi ci tës la leen jàppale ba ñu wér ba mu jël leen ci conseil municipal bi ñu nekk fi di jooy parce que nekkul waa commune bi rek ñoo ñëw ndakaaru bi yëpp ak Sénégal yëpp ñoo ñëw am nañu jógee ba ndar ñëw te dañu gis seen bopp ci mairie bi pourtant nag mairie commune la du mairie ville wala du mairie réew mais ku nekk ba région di gis sa euh, bopp ci mairie bu mel nii donc gàcce ngalaama liñ koy ñaanal rek mooy euh, yàlla na ko yàlla xaare àjjana Baye Fall la woon mais daal ñu faat waxtu ñu bëggee xam yan moment nga mujjee dund ak moom yan moment bànneex nga dund ak donc man moom euh, ci ñi ko mujjee gis laa bokk parce que àjjuma ci guddi bii passé dem nañ ci euh, sëñ Saliou Fall doomu alma ko yàlla ñu tuddee ay jàng fii paas ñoo ànd ci jàng yi dafa dool lépp ba six heures du matin man ak kenn ku jigéen ñoo ko mujjee gis boobu ba léegi nag ci la tëdd dimanche samedi këram di noppalu donc ñu ngi doon jàmbat ay tànk yu métti nag boo xam nga rek àddina moom bu yàlla lu yàlla matalee am na nu mu koy jaarale donc ay tànk yu métti la doon jàll jàmbat donc par là si ñoo waroon ànd bi ñu waree ànd samedi bi euh, ñu toog ba ngoon gisuñu ko bi ñu demee këram ñu ne ñu ngi noppal fekk dimanche la ko affaire bi daanal mais ñun sax yéex nañu xam ne affaire bi jàpp na ko parce que ñu bi ñu defee autopsie crise la ñu wax donc moo ko moo ko faat mais nag di wax rek sonalul kenn ndax mënoon na tëdd njënge njëngente ko yóbbu ko gauche droite nekk na nit ku baax koo xam ne ba muy dem sonalul kenn ay mbiram sonalul kenn boo xoolee tey li fi teew ak li teew ci euh, armée la nga xam ne nit yombul fonk dem aadama rek moom moom solo nit boo fonkee doomu aadama rek yàlla yàlla fonk la loolu la ñu am yaay nuyu nañ la ñu fekk la fi tey fii nga xamante ne wax dëgg la yàlla euh, muy sa mag di nga xamante ne moo nekk maire point E. maire point Fann e, Fann waaw léegi yan relation nga dinañu yow yaay rakkal si si kii waaw avant di leen masaw yéen si boppam ba pare di leen ko jaale yéen tam euh, di masaw presse bi yëpp parce que paala paalaw presse la woon ndax ñëpp ay waayam lañu woon. man maay rax maa topp ci moom mu doon sama xarit sama mag sama confident euh, di ma déglu daan ma déglu bu baax samay conseil waaw yàlla jubale wuñu loolu maa ngi moom depuis xale mm, mu féete ma fu nekk tam jàppale ñu sama suñu papa génn àdduna depuis quatre-vingt-neuf mu yore famille bi musul dem musul dellu gannaaw jarbaataam yi si kër gi ñëpp utal na leen liggéey mais terewul loxoom du génnewu ko ci kër gi daf leen a leen seen loxo man maay def ba léegi ni moo yoroon kër gi euh, ñun wàccoo na ak ñun ñoo ko deseel lu ñu ci def di ko ñaanal fa mu jëm gën a ko fi mu jugee mu metti lool lool lool ci ñun metti lool muy une grosse perte mais nag yàlla kenn du ko coog moom waaw yàlla bu soxlaa ñëpp ñàkk waaw Palla moom man moom booy wax si moom day metti parce que dama dafa fari woon man lool lool lool man lool muy koo xam ne li ma ko ne mission accomplie côté professionnel côté familial il a accompli ses missions parce que su mu ne dem na mais mu ngi fi parce que képp ku dugg ci commune Fann Point Amitié rek di nga ne la ay ay œuvre ñu ngi fi ay réalisation ñu ngi fi du fi jógee te daf fi def yoo xam ne du lu fiy jógee du lu yàqu yu mu fi def yoo xam ne daf fi nekk ba abadan la fi def kon a famille am yëpp jarbaatam yi neveu mi ñëpp a kontaan ci moom ñëpp am reconnaissance envers lui waaw dañ koy ñaanal rek cat bañ ko jiitu fu mu jëm loolu rek lañ koy ñaanal waaw am nañ jarbaatam yëpp témoigné nañ lool si moom waa féete na leen fu mu leen war a féete ñun ñi ay sóoram féete nañu fi ñu papa waroon féete féete suñ yaay fa suñu papa waroon féete ba suñu yaay laaxu euh, un an la rawanteeg moom muy lu metti mais nag dañ koy sante yàlla rek yàlla moo ñu doon joxoon moo leen jëlaat te ku dul may sa bopp tam loo am nga jël waaw di leen maasaw yéen tam bu baax presque. Eh. yan moment nga mujjee dund ak moom. Hmm? yan moment yi nii yoo xamante ne yaa ngi dund ak moom yoo xamante doo ko fàtte. waaw man Louga laa nekk eh, euh, semaine passée rek wax nañ téléphone man ak moom sama caatu yaay woo am lu mu doon wax parce que bu ñu soxlaan dara ci moom man la ñuy woo. mu ne ma waxal pap nangam nangam man ma woo ko bu ma ko waxee mu ne ma waa ah, d'accord je vais le faire ay doomam sax bu bëggee dara ma ma bàyyi ma woo ko semaine passée wax nañu keroog bi ñu ko invité ci euh, grand cœur participé na envoyé mu wax Irandaw ak euh, Cheikh Sarr ne leen wax sama rakk la moo topp ci man sama xarit la loolu dëgg la sama xarit la woon maa topp moom mais yàlla daf ñu boole woon daal jëpp xale jubale ñu maak moom waaw mu lu ci man mais dëgër rek jéem a taxawal ko bësam daal moo tax waaw parce que waruma faiblir tey dama war taxaw taxawal ko bësam moo tax mais nag bu ma nee méttiwul rek waxuma lu dul na mais nag yàlla moo ko dogalee noonu. tudd may sa bopp comme ni ma ko waxee loo am rek nga jël waaw di masawu yéen tam vraiment masawu ñëpp. ñu ngi lay jaajëfal di la masawu di ko jaale. waaw ñu ngi bu baax kontaan ci yow merci beaucoup. maman ñu ngi leen maa leen di fay. maman ñu waaw Palla Samb yàlla dafa def ne man maa doon chargé de communication wam waaye balaa loolu sama sama nijaay la woon parce que Palla Samb yàlla def na ne cabinet xale commune bi rek fi nekkoon te ñëpp mairie boolewul ak ñoom ñooñu ñëpp mooy moo lay nga jàng nga am bac mu may la bourse nga jàngi ñëw mu jël la ci cabinet ñun relation yi dañu amoon ak maire du ay relation employé ak employeur mais relation la papa ak doom la ñu amoon ak moom. ñu gis ne affaire yi métti na lool lan nga xamante ne mënoo koo man je me euh, par exemple je me suis mariée un mois man ak beneen secrétaire bi nekk ci maire bi suñ ñaari xew la mujjee ñëw xewu bànneex bi loolu weesoo ñëw nañ ko seeti këram seet si ko reprendre bureau ñu nekk si jàmm ba vendredi rek gisante ñoo ko moom kafre comme ni mu ñu ko tàmbalee et après yàlla ñoo def li gën. ñu ngi lay jaajëfal di waaw Pala Samb nag dafa nekk koo xamante ne kenn ko nekk rek mën nga ko jaal sa morom du ma ne ñun ñoo ñàkk du ma ne commune Fann Point maa ñàkk mais Sénégal moo ñàkk ndax bëgg gu mu bëggoon commune ndax bëgg bu mu bëggoon réewam waaye fi mu jëm yàlla na ko yàlla teeru yal na yaakaaram Cheikh Ibrahima mu yaakaar yàlla na ko teeru incha allahu rabbi. di la jaajëfal di la masaw. waaye tey ñu gis la fii si li nga xamante ne mooy suñu génn àdduna monsieur le maire bi nga xamante ne moo génn àdduna sa relation la. waaw monsieur le maire Pala Samb ñun amuñu fayam yàlla rek moo am fayam waaye lépp lu baax lu mu doon def rek yàlla na ko fekk ci biir bàmmeelam maire bu baax maire bu bëgg njaboot maire bu bëgg commune am maire bu gore maire boo xamee ne boolewul ak dara ak ay wax liggéey rek la xamoon dëgg yàlla. yow nga nekk bàjjenu gox en tant que yow yan moment nga xamante ne dund nga ak moom ak loo xamante ne sekk ngeen ko comme liggéey. waaw ñun ay bàjjenu gox lañu ñu nekk ci commune Fann Point E bi nekk 18 bàjjen ñun ñëpp ñuy liggéey ci affaire santé surtout nag temps bi nga xamee ne dafa jékki-jékki rek créer santé mère enfant mu benn programme bu bees bu mu génne ci xalaatam liggéey ko ànd ceeg conseil municipal yi vraiment ñu. liggéey liggéey bu rafet ci loolu. xamante ne foog naa ne waaw temps yi la rek mi ngi wax ak man yàggul ci semaine bële paase ma ñëw maire ba mu may expliquer naan ma léegi pour santé mère enfant bi comme yow da nga ko maîtriser dinañu fexe ba euh, dinañ la invité comme ça nga mën a waxtaan mën a toj affaire yi comme ça nit ñi comprendre ko bu baax parce que gis nañ ne ci bàjjanu gox yow yaa ko gën a maîtriser. vraiment ñu ngi waaw ñu ngi sant yàlla di leen masawu yéen tamit parce que Paa la moom Paa la ñëpp la ñëpp a ko ñàkk. waa commune am ñëpp a ko ñàkk ñun bàjjenu gox yëpp dañu doon ñee foo waxee ñu ne yéen rek yéen a am maire boo xamee ne bu weer dee da ngeen di dem maire di fayeku fonk ay bàjjenu goxam di def si ñoom. lépp lu génn rek mu teggi daal di ne lii pour bàjjenu gox yi la kon daal yàlla bu ko cat jaayto ca bàmmeelam am nañu naqar am ñu metit ñun ñàkk nañu koo xam ne dootuñu ko amati fii ci suñu commune bi xëy na nag dina am ñu jéem mais pour doonaat paa la mënatul nekk jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kon leen waaw ñu tey ñu gis la fii si li nga xamante ne mooy suñu génn àdduna bu nekk monsieur le maire bi nga xamante ne moo génn àdduna relation ak moom lan waaw monsieur le maire Pala Samb ñun amuñu fayam yàlla rek moo am fayam waaye lépp lu baax lu mu doon def rek yàlla na ko fekk ci biir bàmmeelam maire bu baax maire bu bëgg njaboot maire bu bëgg commune am maire bu gore maire boo xamee ne boolewul ak dara ak ay wax liggéey rek la xamoon dëgg yàlla. yow nga nekk bàjjenu gox en tant que yow yan moment nga xamante ne dund nga ak moom ak loo xamante ne fekkee ngeen ko waaw ay bàjjenu gox lañu ñu nekk ci commune Fann Point E nekk 18 bàjjen ñun ñëpp ñuy liggéey ci affaire santé surtout nag temps bi nga xamee ne dafa jékki-jékki rek créer santé mère enfant mu benn programme bu bees bu mu génne ci xalaatam liggéey ko ànd ceeg conseil municipal yi vraiment ñu liggéey liggéey bu rafet ci loolu. yan moment yi nga xamante ne foog naa waaw temps yële rek mi ngi wax ak man yàggul ci semaine bële passé ma ñëw maire ba mu may expliquer naan ma léegi pour santé mère enfant bi comme yow da nga ko maîtriser dinañu fexe ba euh, dinañ la invité comme ça nga mën a waxtaan mën a toj affaire yi comme ça nit ñi comprendre ko bu baax parce que gis nañ ne ci bàjjenu gox yow yaa ko gën a maîtriser. ñu ngi lay masaw di la jaajëfal. waaw ñu ngi sant yàlla di leen masaw yéen tamit parce que paa la moom paa la ñëpp la ñëpp ko ñàkk. waa commune am ñëpp ko ñàkk ñun bàjjenu gox yëpp dañu doon ñee foo waxee ñu ne yéen rek yéen a am maire boo xamee ne bu weer dee da ngeen di dem maire di fayeku fonk ay bàjjenu goxam di def si ñoom lépp lu génn rek mu teggi daal di ne lii pour bàjjenu gox yi la kon daal yàlla bu ko cat jaayto ca bàmmeelam am nañu naqar am na ñu métit ñun ñàkk nañu koo xam ne dootuñu ko amati fii ci sunu commune bi xëy na nag dina am ñu jéem mais pour doonaat paa la mënatul nekk jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kon. man dem ba Sall laa tudd dëkkoon Fass bokkoon deuxième coordination. sa digganteeg euh, suñu meer bi nga xamante ne moo génn àdduna bu ñu si mënoon wax. waa tout d'abord di ko ñaanal yàlla yàlla mi nga xam ne mooy dogal lu ko neex ci jaam yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla jotale yoolu ñaan yi li fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxoom. yàlla nañ ko fayante ci bànneex yàlla na àppo sore ci barke Seydina Muhammad wax ci paala nag ci sama diggante moom ak mbooloo mi dana xaw a jafe ndax man bi may xam paala booba bu amee fukki at wala fukki at ak ñaar ci lay war a yem du doog a dugg ci politik yàlla dogalit ànd nañu ma bokk ci ñi ko takkal jabar ànd nañu ma bokk ci ñi ko tuddal doom bu ñu masaan di tukki ñooy bokk néeg bi ñuy fanaan man ak moom du fanaan ak kenn man nday fanaanal ma nekkoon xaritam di magam di àndandoom di homme de confiance am ñu bokk combat yu bare bare bare mais yàlla def ci sutura combat yëpp jaar ci yoon rafet baax ba mu am ci ndam mu nekkoon nag nit ku bare jom nit ku am fulla nit ku am fayda bàyyiwul benn xaritam te pal tamit yóbbuwu ko fenn boo ñëwoon ñun la kii mooy meeru dëkk bi danga naan c'est pas vrai tiitarowu ko damoowu ko te bàyyiwul kenn nit teraangaam it bi mu ko yàlla wërsëgaloon doon na ko bokk ak nit ñi maa ngi dégg ñu naan social yemu ci woon ak doomu aadama loolu ba mu koy def boobu judduwul ba noonu la ko màggaale kon lii dogalu yàlla bu wàcc ci moom la ñu war ko sante yàlla nag bu fecc daganoon ci lii kon tey ñun dañu war a fecc ndax kinu yàlla booleel ba lii am kon yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla defal jàmm di ko jaale nag ñi ñu ko séqal ñépp di ko jaale Sénégal ndax moo toll noonu waaye boo fi ñëwee diggante bërki démb ak démb ak tey xool ñi fi daje ñëpp te kenn ku ne ku fi ñëw moo ko seq ak yow directement dama bëgg nga déglu lu baax li may wax ku fi teew ci mbooloo mi rek moo ko seq ak directement du dafa jaar ci Pape Demba wala mu jaar ci Nafi ñëw jaale si ko non non daf ko seq ak yow relation bu mu seq ak yow mu foon lool wàcce boppam lool waaye am fayda lool it ak fulla fayewul daraam maa ngi gis sànq ci armeel yi ay nit ñuy wax naan xalifa de defal na lii paala Barthélemy def na lii mais xam nga kër day am fondation fondation moo mun a yenu étage ku ñuy wax Alaaji Omar xum xumma nekkoon deuxième section moo formé paala defal ko fondation bu baax xalifa doog ko hérité defal ko nag lépp luy seq ak nit ci lu baax rek defal na rang bu mu am xalifa tax moo tax mu am ko waaye moom it delloo na ko lépp ndax musul yemale xalifa ak dara tudde na ko doom bàyyale na ko doomam kon lépp lu ko xalifa defaloon ci lu baax rek delloo na ko li ma la doon wax sànq gor la fitam nag moom foo ko takk romb na foofu fitam foo ko takk rek romb na foofu dañu daan dem ba dama koy arrêté ne ko booy fii doo fi yegg tey mu ne ma déet ma ne ko doo yegg fii ndax obstacle nangam mi ngi ci kanam mu ne ma yàllaa fi ne waaye loolu it bu ko songee da koy daan ci nu ko gën a wóore yàlla boole ko si mu bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall muy dëgg ci moom mu bëgg Ibrahima Fall muy dëgg ci moom ci kër gi lañ doon nekk fi lañ daan añe fi lañ daan reere fi lañ daan ndékkee waaye seen kër waa waa kër yàquñu ci dara lépp luñ fi doon defit dañ ko nangu woon maak moo ma ànd veyu tëbaski ñuy waxtaan mu ne ma daal man ren booba bi ñuy ànd boobu kenn mënul dara de boitu almet sax mënuñu koo jënd mu ne ma dama am yéen a jëndal sama yaay xar mu mag a mag a mag a mag a xaru tëbaski ma ne ko yemee eh, loolu di nga ko am keroog bi muy jënd xar mi maak moom ma ànd deux cent mille ca jamono yooyu léegi mu ëpp na ñaar fukki at boo ko multiplier woon tey ñaata la mat na million mu bëgg seen sagu kër ba wax bàyyiwu leen ñu wëri bàyyiwu leen ñu taxawaalu bàyyiwu leen ñu defi dara lépp lu mu am bokk na kook ñoom xaritam yu baax yii nag toog wër ma mu seq kenn ku nekk loo xam ne nii mën a su koo nettali mën a toppatoo xaritam di leen seet di leen lijjanti bu ñu masaan toog sax danaan jigéen ñi laa faral te jigéen ñaa ngi nii xam nañu loolu boo xoolee baas bi xool tànt yi di nga xam ne kii ku seqoon ak nit ñi lu baax la jigéen ñi fi ëppoon góor ñi ñoo fi ëpp góor ñi tey ñun nag ay ami de quarante ans rek rek yàggul waaye ñaanal nañ ko sant nañ man bi ma demee ci armée li ba ñu indi koor bi teg ko dama leen man fii laa mënoon a yem ak moom tey ndax li ma xam dafa bari mbir nag bu amee xëccoo day bari bëgg a gis leen ba day bari bëgg xam-xam lu day bari waaye lii ma la wax daal jàppal ne moo wér dafa am euh, année de braise yi parti socialiste nekkoon muy année yu métti bi ñu génnee quatre vingt huit quatre vingt neuf yàlla dimbali ko mu jël coordination bi waaye fekkee ma tuuti waaye yow mu jël coordination mais liggéey na liggéey boo xam ne bu ñuy tuddaat parti socialiste ci Dakar Pala Samba lu ne organiser ko ay jumelage sorti euh, mu tëti seminaire jumelage loo xam ne li kenn xalaat woon ci parti dina ko am sax ba organiser organiser grande nuit deuxième coordination ak coon mu nekk feu bu rëy coordination yëpp topp organiser ko am mu am félicitation bureau politique ak Abdou Diouf yooyu yëpp kon moom bu yàlla dogalee ba mu nekk maire lu mu mérité dama ko seet si bi mu nekkee maire ma ne ko dama ñëw pour ndokkeel si la mu ne ma yaa moom maire bi mais yaa moom ku mu doyul dara dootu a doy mu ne ma yow sama mag nga yaa moom maire bi ma ne ko leen rek laa lay wax mu ne ma nag bul gaaw car du ma ko bàyyee dugg damay dugg car rapide di dem di ñëw ndax ba ma nekkul maire dama daan dugg car rapide ma ne ko waaw dëgg la waaye comme nekk nga maire léegi te yor nga oto am nga paasu bus bàyyil car rapide bi ñi am ñi am 30 francs dugg ci waaye boo jëlee 30 place su 30 francs bi te moom amul place su 100 francs da ngay jël da ngay nit mu ne ma waaw loolu dëgg la bërki démb bi ñu mujjee gisee dafa fekk doomu Jogey di bëgg benn euh, kiyam employé am far employé bi ñu bàyyale ko bi ma ñëwee man xawuma ci dara man maa yóbbu woon waru garu doomu Jogey ñu ne ma paala lañ ko bàyyale mais loolu kenn mësul gis lu mel noonu fii lañ rangale oto yi jëm yóbbu ci kër ndey xale bi war war mu def ko festival nitu jom la nitu fulla la nepp fayda la lépp buñ ko toogee di ko wax daal yàlla bu ko sax cat jàpp ca fa mu ne yàlla bu ko cat jàpp yéen kontaan nañ ci yéen ndax euh, àdduna àdduna day am loo xam ne lii kenn du ko fàtteeti waaye yéen di di dekkal lii dekkal la mën nañ cee wax lu ëpp lii foofu waaye da ngeen ñu bett fekk jekkuwuñ sunu xel moo taxoon ma xaw a réticent tuuti waaye mbooloo mii ma dar di samay rakk di samay xarit di samay jarbaat di samay doom buñ ma ne woon bëtal suuf si tey duma xaar ndax cër bu ma am rek yàlla ak ñoom la ñoom it cër bu ñu am xëy na seen yàllaa ko def ci ñoom kon yàlla na yàlla barkeel lépp yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla defal sutura fii rek lii rek moo mënoon a am ñun ñi bokkoon ñëpp dajewaat waaye tey lii sant yàlla la sant yàlla la fi ko yàlla dogale fii la baaxee te dogalu yàlla nag bu ñëwee dañuy accepter lii la yàlla dogal mais problème bi mooy à qui le tour foofoo jar a bàyyi xel à qui le tour moom yàlla defal na ko lim ko defal am na ay taxaw ay bokkam dar nañ ko ay xaritam dar nañ ko ay dëkkandoom dar nañ ko toppatoo nañ ko defal ko li ñuy defal jullit yëpp denc ko sang ko suul ko denc ko ñaanal ko yàlla mbooloo mi daje fi yërmande daal di lay dikk ñun est-ce que dinañ ko am wala duñu ko am yàlla na ko yàlla def ci ñun ñëpp yéen yàlla barkeel seen liggéey te may leen wér dolli leen jàmm dolli leen sutura ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal maak waaw man euh, maa ngi tudd Ndiaye Abdoulaye Guèye euh, nekk acteur de développement fii si commune d'arrondissement euh, Fann Amitié Point E ñu nekk ak monsieur le maire fii doon yëngu si lu bëri moo tax tamit yoon la ñu ñu seede ko suñ ko seedee lu légitime lay nekk parce que ñoo nekkoon doon moom fii di di dox si développement local di dox si lu bëri waaw mu nekk nit bi nga xamante ne lii jomb ko tey ndax tey ku gis tey li mu am tey si si euh, euh, levée du corps bi nga ñëw ba cimetière yoof nga gis nit ñi dem ba parking ba nit mënul gaare c'est parce que dem moom moo ko liggéey ndax tamit àdduna natt la ak teggi natt tey li mu teggi da ko liggéey parce que li ma mën a wax lu ma gën a marqué moom mooy tey femme commune bi kenn desul ñun ñii ñëpp tey dañu tëj suñuy bureau tëj lépp ñëw wàcc waaw moom mooy da ngay gis ñu nekk si courant politique yëpp ñëpp a daje tey tëj seen activité ñëw wàcc ñëw assister ko parce que daf ko liggéey ndax soo xoolee lu dax femme yi bëgg ko wallaahi wallaahi taala li mu fi def dafa rëy si en terme non seulement de technique d' animation de mobilisation sociale moom su ma waxee loolu moom mooy euh, animation économique daf si am solo moins d'un an d'une année dafa am lu mu fi def moom mooy ñëw na euh, financer femmes yi fii côté animation économique ñu jógee foofu noonu côté jeunesse mu def fi tamit lu extraordinaire sans pour autant sauter aussi euh, mooy kii bi mooy côté infrastructure lu mu fi def ndax tamit euh, côté réalisation yi mu def si jardin yi mu fi def socialement tamit ñi mu doon dimbali moo tax tamit mu am lii tey ndax Baye Fall bi mu doon dund dëgg la si moom ndax lu tax Baye Fall bi dëgg dëgg si moom tey lii wane na ko moom mooy yemul rek si làmminam li mu doon dund la moom mooy ku mu gis jàppee ko ni euh, ni ni boppam ku mu gis yéene la ku mu gis tamit jox la cër ndax tamit dama koy wax ah barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul si meeru Sénégal amul fooy dem ah man de si li ma gis te doo jël audience wala euh, ndax yenn autorités yi day xaw a compliqué pour pour pour accessibilité bi day compliqué mais c'est le seul maire man bi ma gis waaw damay réitérer li ma wax de bi ma gis ngay dugg mairie sans audience waaw te yamul rek si population bi da gis ñeneen ñi nga xamante ne dañuy jóge feneen feneen yeneen quartier di ñëw sans audience sans audience da nga koy gis Baye bi ndax soo demee tamit bureau photo chèvre la fa def moom daal Baye Fall bi muy wax daal def na ko waxe jëf na ko te tamit oh, doxee na ko moo tax ñoo ngi mu gënal ko fi mu jógee dénk nañ ko daal Cheikh Ibra ndax tamit quoi qu'on puisse dire loolu la doon dundut te loolu wan na ko waa commune darondissement bu mu dëkkal ñun nag bu ñëwee tey ba tey mënuñu seede lii ah kon de kon nit ñi nar na noo ragal nar na noo ragal ndax ngay dund ak nit moom mu def lu baax ngeen bokk fi ngeen dëkk defe naa yoon la ñu ñu ñëw taxaw def seede yi ak témoignage yi ndax témoignage yi tan def ñun xam nañ la pourquoi ñu koy def ndax finalité technique d' animation de mobilisation sociale animation économique moteur la si te daf ko def fii waaw il n'a pas fait ndeysaan defu fi daal li nga xam ne daal xaram nañ ko wala dara lépp lu rafet rek la sëkk ak jaam moo tax tey mu am bés bi loolu daal laa amoon si lu may sànni si kaddu. ñu lay yan dund ak moom. waaw moment bi ma mujj dund ak moom parce que euh, deful tax euh, deux semaines parce que dafa ñëwoon di jaale pourtant benn dëj benn sa si rue ñett si Cap Rue 10 ñu taxaw moom ndax mu gis interpellé ma ne ma Pythagore ma ne ko waaw ça va kii monsieur le maire ñu waxtaan mu ne ma depuis euh, comment dire temps yii pourtant maa ngi bëggoon woola pour nga ñëw mairie ñu waxtaan. dama am en dehors même acteur de développement bi ma doon dama réaliser benn film documentaire bi nga xam ne moom daf si jàppoon jàpp bi moom mooy euh, ñëw na taxaw indi ay idéem indi ay stratégie ba pare ñëw fa jël fa kaddu. ñëw jël fa kàddu dóor témoignage ba pare encouragé ma wax fa tamit xam-xam ne comme culture dafa bokk si domaine de compétence transféré aux collectivités locales nee na moom kon du ko mën a bañ a teewee te pourtant si diire bu xat laa koy yëgal moom mu ne ma ne bi Pythagore yow moom même boo ma ko waxoon si même jour bi naa jël sama tànk wala ma taal sama oto ñëw taxaw fekkee fekkee bés bi waaw moo tax keroog ba ma gisee loolu la doon réitéra naan ma da nga a ñëw tax ñu wax si volet culturel euh, ñu wax ko si kii bi comment dirais-je si si euh, commune bi ñu doxal loolu jour boobu daal laa ko mujjee gis moo tax lu ma bett lool la lool la lool loolu la. dañu lay jaajëfal di tiisal ci euh, masaw aussi. Mm-hmm. ah ñoo ko bokk ñoo ko bokk ndax tamit yéen presse bi tamit ñoo ngi leen di masaw parce que tamit démb ñun gis nañu mouvement bi ngeen am fii si commune d' arrondissement bi ñëw taxaw concentré aussi dëj bi yéen tamit yàlla na yàlla fay yool bi. ñu ngi lay jaajëfal. waaw merci beaucoup soxna si.